asalaamaaleykum euh, waa waa Sénégal d'abord maa ngi leen di euh, remercier seen invitation donc di leen jaale aussi ci décès wu Lamine parce que yaakaar na émission moom bu ñu def fii moom laa ko defaloon donc décès aussi nekk lu ma lu ma bett daal donc ma ciy profité di leen jaale yéen ñëpp di jaale aussi internet yëpp. merci beaucoup yàlla na ko yàlla yërëm te Isaac raar nga de kenn gisatu la <laughs> foo nekkoon. waaw c'est normal maa ngi fi woon nag mais dama doon faral def ay ay va-et-vient mm-hmm. mais maa ngi fi woon. d'accord mm-hmm. yaa ngi fi sa d'ailleurs génnee nga benn son bees. waaw génne naa benn son bu bees buy wax ci élection yi. Mm-hmm. parce que dama gisoon ne lu am solo la période la boo xamante ne. Euh, képp ki nga xam te ni yàlla may na ko mu am possibilité wu woote jàmm je pense que euh, am na ci rôle bu ci mën a jouer pour euh, apaiser un peu parce que gis nañu ko commencé woon na tàng un peu mm-hmm. donc te élection yi jege na li muy gën a jege rek ñuy sentir plus de tension mm-hmm. donc loolu bokk na ci lu ma gën a poussé à ce que ma ma def son bi pour woote jàmm ci ci dëkk bi d'accord ngay woote jàmm pendant ce temps campagne bi quelques jour rek mm-hmm. euh, violence yi commencé marron maron du feu comme ni ko waa Sonko waxee di gaañante accident yi aussi commencé bëri porteur de voix ban analyse. waaw moo moo mooy waral lii rek mooy waral son bi ma def nii ndax euh, quoi qu'on dise euh, ñun chance bu ñu am mooy mën a wax ay nit ñu bëri duñu mën a déglu donc euh, dañ ci mën a profité di lancer ay messages yu positif di woote jàmm donc parce que devoir boobu nañ am en tant que ay ambassadeur quoi mm, donc ay marron du feu lépp lu mënti doon nañ xam ne ay sénégal lañu mm-hmm. te 10 000 francs ñu lay jox pour nga sànne wala nga toj donc euh, jaru ko quoi parce que après loolu lépp suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu alal la parce que li nga yàqee it suñu ci suñu poche lañ koy lañ koy génn pour euh, pour defar dëkk bi donc boo ko yàqee aussi suñu dëkk nañu yàq rek quoi. d'accord suñ dëkk lañ yàq dix mille francs yi ñuy joxe ñuy vooteel nit jaxu ko tey ci milieu bi nga nekk artiste yu bëri jël position buñ mm. jëlee nit daf ñu ngi ci Sonko Dadit Bibson mu ngi ci Idrissa Seck ñoom maam Gor Diazaka ñu ngi ci euh, président Macky Sall <laughs> yow ban position nga nekk en exclusivité sur Sénégal euh, waaw c'est vrai que li ndax euh, dañu toll ci benn choc de génération ak choc d'intérêt choc de génération parce que am na ñi fi nekkoon am façon bu ñu doon defee politique yàgg fii lool donc am ñoo xam dañoo taxaw ne franchement ñii bu ñuy nguuru sax juddooguñu donc jot na ñu am beneen façon de faire de la politique ak beneen façon de de de diriger. am na ay artistes yoo xam ne aussi dañ c'est normal dañuy xool fu seen intérêt ndax nañ leen proposer lu ko jar. ñu dem féete foofu noonu féete ci fu pouvoir bi nekk parce que dinañ dinañ leen mën a jox li nga xam te nañ ci mën a gis seen bopp mais man yaakaar naa je prends toutes mes responsabilités te fekkoon tey am na ko mooy supporté euh, Ousmane Sonko lay doon à 200 pour cent waay Ousmane Sonko ndax euh, discours am ak lu muy incarné man yaakaar naa ci loolu lay gën a gis sama bopp quoi. mais tey est discours kese mën naa téye réew en fait. ce choix la c'est personnel dañ mm-hmm. koy dañ koy accepter dañ mm-hmm. koy respecter aussi mm-hmm. mais Ousmane Sonko moom lay jàppale parce que discours am c'est rationnel yooyu wax kese te ousman Sonko euh, liñ koy waxal mooy ay révélation rek. kon tey porteur de voix bu ñëwee nee ñu Sonko parce que discours am bon. tu sais tu sais ce qui fait peur c'est que euh, à côté que ñun Sénégalais on dit que on veut le changement bëgg nañ dund leneen mais on n'est pas prêt à s'engager. Euh, li ma commencé mooy dañoo toll fi nga xamante ne dañoo bëgg yeneen xeetu nit yuy defee neneen politique ñoo xamante ne beneen mentalité nañ am ñoo xamante ne fi indépendance fekk la fi fekk leen fi donc ñoom ñu ñëw def wan ñu li nga xamante ne dina permettre ñun en tant que ay jeunes ñu mën a gis seen bopp si lu discours est très important mais aussi li nga xamante ne gis nañ ko moom moo koy liggéey ci internet bi di ko liggéey am ci ko liggéey ci euh, ci assemblée nationale donc loolu yëpp dafa nekk ñett at yi nga xamante ni yëpp avant élection yi ñun ñi ngi gis moom ñu ngi yëngatu di défendre ay intérêt yoo xamante ne ñun dañ ciy gisuñ ba plus particulièrement man donc man loolu yëpp laa topp moo tax tey bu ma xoolee langue politique bi lu fi nekk ak aussi lépp li nga xamante ne ay risque la yoo xamante ne euh, ëllëg mën nañu porte préjudice ñun ñii la nouvelle génération sénégalaise d'abord donc il faut quelque part mu am ñu engagé wu wax seen xalaat wax na ñun fi nañu fi nañu féete ndax fi nañu gis ne moom mooy lu gën ci dëkk bi d'accord tey ci Sonko boobu ba tey Sonko buñ ko falee à part discours am lan la mën a apporter Sénégalais. bah il faut d'abord lire son livre Sénégalais bu nekk war na aussi dem xool ci programme am bu nekk aussi war na mën a gëstu. parce mais que mais ce que Sénégalais yépp jàng nañ tamit. waaw mais soxlawuloo soxlawuloo yenn saa yi jàng parce que yenn saa yi du jàng rek ay këyit ak lu ñu nasaraan si gëmloo ne loolu moom mooy jàng. jàng nekkul rek nga dem jàng ba dem ba université jàng mooy d'abord nga am ouverture d'esprit mën a sa xol sa xel nangu déglu. loolu moom mooy jàng dañoo naxee ne il faut nga dem ba am bac doctorat plus pour ñu mën ne yow intellectuel nga alors que c'est pas vrai ce qu'on appelle les intellectuels fii en fait en Afrique noire euh, au fait ñu mooy ñi nga xam te ñoom ñuy ennemi au moins ñoom ñuy ennemi Afrique sax parce que ñoom dafa am lu ñu leen nootee am lu ñu leen formaté ba nga xam te ni du ñu mës a défendre ñun suñu intérêt donc du coup soxlawuloo juste dem jàngi ba am ay diplôme pour mën a nekk kenn mën a nekk nit koo xamante ne mën nga am mën am dégg-dégg. vous donc je pense que chaque aujourd'hui peut comprendre le discours de Sonko te duñ ko joxul chance am duñu mën a xam lu mën ak lu mënul donc déjà ñu ngi naan ko wóoruñ la mënul ne mais joxuñ ko chance am il faut qu'on faut qu'on ait euh, faut qu'on ait quand même euh, faut qu'on ait un peu plus de de confiance en nous-mêmes. d'accord loolu après urne yi dinañu wax. <laughs> kan lañ am confiance ba mun a diriger suñu réew mais tey chacun yow bu ñëwee tey sa profil lan nga mën a apporter Sonko parce que tey bu ñëwee par exemple nit dof moom mu ngi nekk stade bi moom foofu rek la àppo chaque année mu ñëw def événement après d'ailleurs sax euh, Louga mu ngi war a Sonko mais comme Zac euh, bu Takei lan la mën a apporter Sonko bu ñëwee ci moom. ba déjà le fait que ma wax fu ma féete. mën a am euh, mën a am position déjà c'est quelque chose pour que euh, internautes yi sénégalais yi mën a am chance su gis interview bi mën a xam ne euh, man fii laa féete te lii nii mooy lu ko waral donc je pense que loolu rek dara la lu mën a wane ne lu mën a wane ne sonk am na chance mën a am dara ci biir dëkk bi te loolu moom permettre man ma mën a ma mën a engagé wu affirmé wu ne moom laa àndal. léegi affirmé wu pour mën a ànd ak Sonko. c'est pas le dernier moment mais tey bu ñu xuusee dugg tuuti sa biir famille y a euh, profil yu bëri yu fa bokkul en fait. <laughs> yu bëri yu fa bokk <laughs> comme. <laughs> par exemple tey commissaire Keita ñu ngi koy nuyu di ko ziyaawaale. moom fu mu féetee. fan féetee. fan la féetee ci Sonko wala. je sais pas fan la féetee yow laay yaay posé question. <laughs> sérieusement xamoo fi mu féetee. yaay posé question waxal. parce que non moom. ci ci Macky Sall wala. Euh, hmm. xaw ma kon sa décision tey du du du indi benn benn kii sa au sein de la famille parce que récemment aussi ñu ngi gis dinañ ci jàllaat ma nekkatul ci Takeifa avec hmm. la décision de Sonko politique bi est-ce que du jaxase famille bi. non non non non non loin de là ça n'a rien à voir. Mm. bokkul dara bokkul parce que bu ñu mélangé bu ñu jaxasee cartes yi ah, euh, et je m'attendais bien sûr que ñu poser ma question boobu parce que depuis doo xoolee cinq six mois. Mm. Euh, defuma interview. donc du ma defee tey interview parce que am na ñu may liggéeyal te aussi am na ay conseillers yoo xamante ne ñoom tey yi ci ñëw gis ne. lii ni nga xam ne moom lay mooy lu gëm lu ma gëm muy euh, wax ci Sonko wax ci élection yi donc mën naa ko def te du te du porter préjudice en rien de tout ci lu concerne Takeifa ak carrière Mm-hmm. donc loolu c' quelque chose que boo xamante ne j'aimerais bien que ñu def un la part de chose mm-hmm. euh, te xam na aussi après les élections bien sûr débat boobu noonu dina dina dina dinaa ci am dinaa ci mën a dinaa ci mën a wax bu baax mm-hmm. mm. d' accord mais di nga ci mën a wax bu baax mais ñun dinañ ci taxaw tuuti pousse euh, pousse pousse politique un peu euh, lan moo xew ba maa quitté groupe bi je ne sais pas xam nga nit koo xamante ne Euh, moom moo affirmé ne au fait euh, lii quitté naa groupe bi quitté naa groupe bi pas quitté naa seulement group bi on est on est une famille c'est c'est c'est c'est c'est une famille c'est c'est Takeifa c'est un esprit mhm. donc moom du fekkee choisir jël décision ne ok man dama préférer def beneen beneen yoon je pense que moom moo gën a placé wu à expliquer lu tax boo voyez ce que je veux dire donc man tey du ma ñëwee du wax day mel ne ne xam nga dafa am yeneen affaires yi nga xam te lay jéem ci suuf alors que le débat n'est pas le mm. débat mooy euh, pour l'instant je plus là pour parler des élections mm. qui s'approchent woote jàmm mais aussi wax sama sama sama fi ma féete tey Sonko tey moom tey mooy quatrième jour campagne mm-hmm. mun nañ xaar ci caravane Sonko ñu fekk la fa wala sax nga génneel ko single bu bees puisque artiste nga pour um, jàppale ko non yaakaaruma loolu nag yaakaaruma yaakaaruma génneel ko single. Mhm. woy ko parce mhm. que du ci esprit boobu man laa nekk. Ah, te yaakaar naa duma ko mës a def ah. Mhm. donc euh, mais euh, mais dinaa mën a quand même ko parce que yaakaar naa ne moom moo gën ci ci ci Sénégal. waaye mais yaakaaruma naa dem bind dem studio bind benn way way Sonko yi sax non yaakaaruma def loolu mais gëm naa ko te gëm naa lu muy. li muy défendre ku ci nekk rek am na fi nga mën a féete ak fi ñu ko mën a féete. Mm-hmm. pour euh, pour jàppale ko pour défendre ko. d' accord looy wax six millions électeurs yi pour tëj euh, interview parce que heure bi jot na 6 millions électeurs yi nga xam ne 24 euh, février ñoo wax a choisir parmi ces cinq candidats. yow candidat Sonko moom nga. Mm. choisir wala choisir sax comme ni ñu koy waxee lan ngay wax 6 millions yooyu. waaw 6 millions yi d' abord euh, di woote jàmm ah, parce que ku ci nekk am nga am nga fi nga féete te ku ci nekk am nga raison ne man fi laa féete parce que on est dans un pays libre ah. Mm-hmm. donc nañu góorgóorlu ku ci nekk dem récupérer carte électeur am te bés ba du jotee ñëpp nañ dem voté ci jàmm ak salaam parce que jàmm ji moom bu ñu fàtte na ci la lépp xaj Sénégal ñun ñoo ko ñoo ko bokk.